demi-finale baa ngi noonu ordinateur yaa ngi faaw demi-finale baa ngi noonu waaw comme ça dara ci Pierre Marie bu Mbour di am naa Pierre Marie bu Mbour di am naa naa naa naa Thank you. ziar naa ko waa diaspora bi kon doo ma doon jël di def daal di def daal di day ñëw final waat roba naa ko ziar naa final waat day ñëw final waat aca Yankuba ordinateur rogo yal bende jika kasi den me megeri tewe Rogo yal bende jika kasi den me megeri tewe koordinator tak kena yang arbit arbit eh! koordinator yang kuma koordinator yang kuma ordi warna kondomo Ordi warna kondomo Sarr waaw oh, ordinateur daan na Yankuba Sarr final ordinateur Pierre Marie bu Mbour Diop Nial jour 5 novembre 2023